ah d'accord kon ma ñëwaat incha allah donc dama ne gannaaw bi ñu dégloo conférence sànq ci suba ci le vrai sens de l'islam donc ñu ngi dégluwoon suñu ñaareelu conférence mi ngi ñëw bu baax léegi voilà ah d'accord donc ñu ngi dégluwoon suñu deuxième conférence bi nga xam ne thème bi mooy arkaanul islam arkaanul islam maanaam les piliers de l'islam les piliers de l'islam ku ñu koy defal mooy al oustaz Seydou Ly al oustaz Seydou Ly donc ñu leen di ñaan ñëpp ngeen déglu bu baax ngir mën cee jëriñoo incha allah donc du ma yàggal xaw nañoo tardé ci démarrage bi donc du ma def lu dul jox directement oustaz incha allah kaddu gi pour ñu mën a commencer.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla doolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu ak ci weer wu màgg wi nu nekk mu nekk weeru barke rawatina nag ci fukki fan yu mujj yi nga xam ne ci la laylatul qadr nekk weer koor li muy am importance am importance fukki fan yu mujj yi ñoo ci ëpp solo fukki fan yu mujj yi li ñuy am solo am solo benn guddi giñ ciy wër tuddee ko laylatul qadr moo ci ëpp importance yal na yàlla may ñu am ko ginnaaw loolu mooy ñu ngi jéem suñ kemtalaayil kàttan fàttalante ak yéen tomb bi mbokk bi wax léegi mooy arkaanul islaam mooy kenoy lislaam lan moo téye lislaam comme yéen ay jàngkat ngeen jël ay misaal di leen won lu yomb la pour ngeen xam lan mooy lislaam yaakaar naa ne gars yi fi jaar ci suba leeral nañ lan mooy lislaam kon ñun duñ ñëwaat di firi lan mooy lislaam waaye dañu bëgg a cof tuuti ci maraati bu diin état bu diine yi maraati bi état bi ñaata la salaasa ñett bu njëkk mooy al islaam ñaareel mooy al iman ñetteel mooy al ihsan tayyib allah barik fikum suñ ñëwee ci al islaam te mooy tomb bu ñu yitteel islaam mooy lan mooy cër yi ñoo koy liggéeyal yàlla cër yi iman xol bi moo koy liggéey ihsan mooy li ngay def mu rafet li mooy maratibu diin l'islam cër yi ñooy liggéeyal yàlla cër yi shahadatu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah lan moo koy def shahada lan moo koy def làmmiñ fas bi xol bi fas ko làmmiñ bi wax ko nga ñëw ci iqaami salaa lan moo koy def cër yi nga ñëw ci itaay zaka lan moo koy def cër yi nga ñëw ci sawmu ramadan lan moo koy def nga ñëw ci hajj lan moo koy def kon suñ la waxatee lislaam mooy lan waxal lu cër yi di liggéeyal yàlla la iman rabbukum aalamu bi ma fi nufusikum xol bi la yonent bi moo tax mu ne al imaanu haahuna ngëm yàlla fii lay nekk gis nga waxul cër yi de mais ngëm xol bi kese beneen bokku ci ihsaan nag mooy xol bi loolu muy fas cër yi loolu ñuy def lépp boo koy def mu rafet bu doon julli la nga julli julli gu rafet woor nga woor woo koor gu rafet ak lépp soo koy def na rafet lii mooy maratibu diin suñu delluwaatee tuuti ci islaam mooy lan ñu tënk ko baatu laa ilaha illa allah muhammad rasulullah laa ilaha illa allah muhammad rasulullah avion ñaata laaf lay am ah ñaar bi ngeen bi ngeen nekkee ci Sénégal ba léegi ndax mos ngeen gis avion buy naaw am benn laaf est-ce que mun na nekk lu tax mun na nekk ah kon de soo gisee avion buy dem demee benn laaf ba ban lay côté lay dëngee côté bi laaf bi damm lay dëngee rek day daanu loolu mooy laa ilaha illa allah muhammad rasulullah mooy ñaari laaf yi laa ilaha illa mooy benn bi mënul dem moom kese muhammad rasulullah mooy beneen bi lan lay tekk ci olof mooy yàlla lañ war a jaamu muhammad mooy wane nu ñuy jaamoo yàlla term terminé jeex na tout court yàlla rek lañ war a jaamu muhammad moo nuy won nu ñuy jaamoo yàlla ñu ngi di di woor kan moo nu won nu nuy woore est ce que dañu jékki-jékki rek ne non koor dañuy tàmbali heure bi jeexal heure bi ñenn ñi naan non nañ ko discuter ah ñu xool mbo non dañu ñëw fekk yàlla bi mu ñu nee woor leen yonent bi saa salaam moonu won nan la ñuy wooree yàlla bi mu ñu nee julli leen yonent bi moonu won moo tax mu ne xuzu an nii manasikakum jël leen ci man nu ngeen di jaamoo yàlla loolu moo tax mu ne man amila amalan laysa alayhi amruna ku def benn jëf man muhammad wanuma la ko yàlla dala koy delloo yaakaar naa ñaari ndaw yi ci firi l'islam war na doy pour ñu xam ci gàttal su ñëwee ci nag kenoy l'islam arkaanul islam ñu fekk ay pied la ay keno la ay tànk yu taxaw nekk juróom fii nu nekk dal bi tiim nu dafa am lu ko téye mu taxaw wala saa dal bi li ci kaw nu muy def sees yi ngeen toog lu tax ngeen mën a toog équilibré toog këcc amu leen lu ngeen di ragal lu ngeen di dafa am lu téye sees yi ñun ci suñu bopp bu ñu taxawee lan moo nuy téye ba nu taxaw suñuy dox lan moo nu téye ba ñuy dox dafa am ay tànk l'islam dafa am ay tànk dafa am ay keno dafa am lu ko téye ba du daanu loolu mooy keno yu l'islam mooy arkaanul islam mbokk yi lépp loo xam ne bu fekkee table la bu dee chaise bu dee bu dee nit bu ñu dindee tànk yi nu muy demee day daanu est-ce que loolu dina fa nekk ku nekk ci l'islam ne man seedewu ma ne yàlla kenn la duma julli parce que dañ ma koo teggil wàcce nañ ma ko duma woor damay joxe ndogu màkka jarta dem azaka aw yoruma ko màkk am na feneen fu ma gën a jege kooku est-ce que jullit la man nag gis nga bu ñu comprendre bu ñu xamee arkaanul islam danañ xam ci Sénégal ñan ñooy jullit ak ñan ñoo dul jullit même buñ ko waxee seen kanam même buñ ko tiitaroo ne ñoom ay jullit lañ duñu ay jullit parce que jullit nekkul ci wax waaye ci jëf la man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal al amal innama hiya amalukum uxsiha lakum fa man wajada xayran fal yaxmadillah wa man wajada gayru zalika fala yalumanna illa nafsa ay jëf la du ay wax kenoy lislaam bi ci njëkk gën cee dëgër ëpp ci importance mooy shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah mooy seede ne yàlla kenn la muhammad yàllaa ko yónni wax naa ko léegi mooy avion bu am ñaari laaf wax ngeen léegi ne avion bu amul ñaari laaf du dem du naaw wala bu dee est-ce que ci avion rek lañ koy yemale lépp lu am ñaari laaf lan mooy tax mu mun a naaw mooy ñaari laaf yépp normal yépp wir amul benn sikk bu ci nekk amul benn gàllankoor benn manqué manqué waaye même bu doon picc buy naaw la benn bi wér benn bi wérul picc boobu du naaw keroog kon nañu bàyyi xel ci shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah moom nag mooy yenu pied l'islam bi moo ko yenu mooy sa xol bi xol bi ci biir yàlla rek rek nekk fa yonent bi rek nekk fa keneen ñaar keneen bu mu fa nekk ñoom ñaar rek parce que keneen amu fa place yonent bi sax lu tax mu fay nekk mooy yàlla moo leen nga dugal ko fa atiullah wa ma ataakum rasul wa in tutu iihu ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul wattaqullah inna allaha ay aaya la ginnaaw yàlla yonent keneen amu fi place lu tax parce que yonent mooy wane li yàlla bëgg yàlla bi mu bëggee ñu jaamu ko dafa yónni yonent bi pour yonent bi ñëw won ñu nuñ koy jaamoo jaamu yàlla nag suñ ko tënkee ci julli woor joxe azaka dem màkk dañuy nax suñu bopp aw dundin la aw dundin lan moo tax nga mën a toog fi gis jigéen ju paccal dangal ah xappati def bopp neen nga ni ko yow gëmoo yàlla lu tax nga ñeme loolu c'est parce que ni mu solo yàlla bëgg ko lu tax ngay critiquer bis bu nekk waa ji nga nekkal sa xarit bi te muy check down di cris karas tubé ji yonent bi dafa jàngale nu góor di solo jàngale nu jigéen di solo loolu mooy muhammad rasulullah mooy ni may solo muhammad moo ma koy wan ginnaaw shahada yi mooy yàlla rek laay jaamu loolu ñu naan jaamu yàlla rek laa koy def du ma ko defal keneen da nga koy gëm ci sa xol wax ko ci sa làmmiñ say cër jëfe ko su xol bi gëmee ne yàlla kenn la làmmiñ bi wax ko cër yi lànk ngëm googu saxul wax jooju du dëgg balaa muy nekk dëgg foog ñett yépp ànd ci xol bi fas ko làmmiñ bi wax ko cër yi ñooy dëggal li xol bi fas làmmiñ bi di ko wax te mooy amatoo droit ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nga tëdd fajar ci sa kawlal nga dégg ñu naan asalaatu xayru min an nawmi ngay gën a xëcc mbaaju mi wala nga naan la an nawmu xayru min assalaa amatoo droit parce que da nga seede ne yow yàlla ngay jaamu yaa ko seede ci sa xol mooy shahada yi nit munta nekk jullit te shahada bi dëgguwul moo tax tey problème bu ñu am mooy foofu moo baaxagul ba pare wax nañ léegi keno yi bu taxawulee ndax leneen dina taxaw ci kanam ci kawam pied yi bu taxawul ndax leneen dina taxaw ci kaw immeuble boo séen mu dégg mu jóg ci kaw nga koy yéem ci taar ak rafet dafa am lu nekk ci suuf lu ko téye loolu mooy shahada bi moo tax gis nga yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw màkk def fa 13 ans fukki at ak ñett lan la doon tabax shahada boobu bi mu ko defaree ba mu dëgër loo gis moo tax monde waa màkk amuñu naafiq naafiq yi fan lañ nekk madina alxuraan moo ko wax alxuraan moo nañu ne naafiq yi madina lañ nekk lu tax parce que ñii dañ leen a yar nampatal leen ci shahada bi ba mu dugg seen xol moo tax nga gis ñu bàyyi kër yàlla ne bi yàlla yonent bi demee génn màkk dem Médine ne gàddaay leen ñu gàddaay nga gis ku bàyyi toolam ay tool toolu tàndarma toolu toolu toolu toolu ay tool laa la wax ay hectare ay milliards ñu bàyyi ko waa ji bàyyi ay toolam topp yàlla ak yonent bi nga gis ku bàyyi këram bàyyi jabar nga gis ku bàyyi doom nga gis ku bàyyi ay kër gis nga ñooñu nga xam ne nangu woon nañ la bàyyi lool bañ leen bàyyiloo bàkkaar dañ koo bàyyi mais ñun ñi ñun ñi kiris karas rek dañ ñu koo bàyyi loo mënuñu ko bàyyee waxuma la ak nag shahada ba moo tax mënuñu gàddaay al hijra ak gars yi balaa ñuy hijra bakkaar yi lan lañ njëkk a hijra mooy adduna bàyyi kër bàyyi doom bàyyi jabar bàyyi bitik bàyyi tool bàyyi magasin xoola Suhaybu Ruumi keroog muy gàddaay yàlla moo ko wax ci Quran wa min annaas man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah xoolal ki nga xam ne ndeysaan dafa bàyyi lépp tànn yàlla ak yonent ndax yàlla kontaan mu ne tëll di dem waa Màkka daf ko ne ko hé Sohayb bi nga fii ñëw indoo fi dara doo fi jël xaalis bi naan da nga koy génne biir Màkk mu ne yóbbaale wu ma ko ñu ne anam mu ne su ngeen demee sama digg néeg dama koo gas ba mu xóot suul fa alal ji bu fekkee moom rek ngeen soxla dem leen ñooñu nangu nañ bàyyi c'est parce que képp kuñ kuñ ne bàyyil sa jabar mu bàyyi bàyyil sa doom mu bàyyi bàyyil sa kër mu bàyyi kooku ne kooku boo ko nee bul soloo nii du soloo noonu parce que bàyyi na lu ëpp importance loolu soo ko nee bul waxee nii du waxee noonu soo ko nee bul fanaan fi du fanaan soo ko nee bul dem fi du fa dem parce que bàyyi na lu ëpp loolu moo tax bi ñu demee yàlla lu mu leen bàyyi loo ñu bàyyi parce que sahaada bi dugg na yàlla occupé na ci seen xol ñun mbokk yi bu dee dañuy wax dëgg yàlla moo duggagul sunu xol yi day benn boroom xam-xam day misaal mu ne sahaaba yi dañoo jël yàlla dugal seen xol jël àdduna ngëpp ci seen loxo biñ demee ba gisatuñu lu ñu xam ñu sànni àdduna des ak yàlla ñun nag biñ demee ba xamatuñu lu ñu xam comme yàlla fii lañ ko def jël àdduna dugal fii bi affaire bi pour amee problème ñu sànni yàlla jàpp ci àdduna misaal laay joxe da ngay gis benn xale bu jigéen mu léttu ay mèches yu gudd comme ni ko benn xale bu jigéen defee woon gis benn xale bu jigéen bu greffage ba ci suuf mu ne ko yow booy jullee yàlla du ko nangu xale bu jigéen bi ne ko ah bon mu ne ko sii parce que sa mèche yi dafa xaraam xale bu jigéen ko ne ko jaratul may julli jaratul may julli lu tax jaratul may julli tax jaratul may julli mu ne ko parce que su ma jullee yàlla du ko nangu maadaama bu ma jullee yàlla du ko nangu kon man man dootuma julli parce que sama mees yi pareeguma pour dindi ko sama bopp ñun ñëpp loolu la parce que sahaada bi duggul occupé wul place am yonent bi séen na benn waay bu takk lam ci marché bi lam mu waaxu ba ci liwaa ji téye lam bi ne ko walaw mitta wa haza fi yadika ma aflaxta abadan daal di koy buddi sànni lam bi ci suuf yonent bi won waa ji ginnaaw nit ñi ne waa ji dama nga jël salam waa ji ne leen déedéet muhammad du tekki safara sama loxo ma koy takkaat du ñu tekki safara sama loxo ma koy takkaat ñun ñaata yoon ci ñun ñu takk lam ñaata yoon ñuy wàcc seen tubéy ñaata yoon ñuy soloonu ñuy soloonu yàlla bëggul ñaata yoon ñuy dem fu yàlla bëggul c'est parce que sahaada bi duggagul ci biir xol bi duggagul dañ koy wax rek waaw sahaada bi balaa làmmiñ bi di ko wax lan lañ wax nga dugg ci xol bi da ngay dégg ñu ne aqida yéen ñi jàng arab lan mooy al aqida mooy lu ñu fas da ngay jàng ci alquran yàlla mu ne wa min sharri nafathati lil uqad aqida ngoog dañ ko fas dañ koy takk léeg-léeg nga gis ku feebar ci Sénégal ñu yóbbu la ci benn paa mu takkal la wëñ bu weex wëñ bu xonq daal di koy takk ba mu dëgër tuf la ci guro bu guro mu xonq loolu mooy fas-fas loolu mooy al aqida dañu bëgg nga jël yàlla takk ko ci sa biir xol bi ba nga xam ne buum bi kenn du ko mën a tekki loolu moo tax gis nga saxaaba yi bi leen yéeféer yi jàppee di leen rey naan leen weddi leen yàlla weddi leen muhammad nga dégg ñu naan allahu ahad parce que takk nañ ko kenn mënatu koo tekki ci lañ rey sumayya ci lañ rey bilaal ci lañ dóor bilaal duma ko ci lañu rey yaasir ci la ñu lakk xabaab ci la ñu jàpp bilaal weer ko ci naaj bu tàng bi naaj boo xam ne buñ ci buñ ci weeree buñ ci droofee nen mu ñor buñ ci dugalee tànk mu ñor ku ci dugal sa baaraam mu ñor ñu weer bilaal ci naaj boobu naan ko ukfur bi muhammad mu naan allahu ahad parce que pas-pas bi moo dëgër aqida bi dëgër na fi mu ko takk jàpp na ko foofu la loolu mooy yàlla subhanahu wa taala bu njëkk ñaareel mooy muhammad rasulullah mais jullit ci kaw suuf kan la ko yàlla toppandooloo ku dul muhammad yàlla mu ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kenn la yàlla wax ne wa in tuti uhu tahtadu muhammad bu ngeen ko toppee jub atiu llah wa atiu rasul muhammad laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul muhammad muhammad la yàlla wax ne ñun nañ ko toppandoo amul keneen muhammad la ñu yàlla wax ne nañ ko roy muhammad la ñu yàlla wax nañ ko xool ci lépp lu muy doxalin ñu doxal ko sahaaba yi li ma leen doon wax sànq ci shahada yi niñ ko defee ci yàlla noonu lañ ko defee ci muhammad 24 heures sur 24 nu muhammad di lekkee la ñuy lekkee nu muy naane la ñuy naane nu muy solo la ñuy solo billahi wallahi wa taala ci weeru koor lañ nekk benn seex bu tudd Yunus dafa jóge France li ñu defal thème de formation ci waa tabliq la bokk ñi ñiy def xuruj mu ñuy defal thème de formation di ñu waar ba ci yàgg mu ñuy wax Muhammad nu mu doon solo mu ne moom bi mu ko jàngee dafa xëy suba rek daan ne tey da koy toppandoo mu ne mu dem sangu ba set fomp diw ba rafet diw sikkim bi daal di tusngalu daal di sol manto bu weex teg ci gilet bu ñuul mu ne mu daal di amaamawu tusngal bët yi mu ne mu yor kaan bi mu génn ci biir Paris laa la wax France muy dox ci biir Paris jëm ci jumaa ji benn ivrogne xam ngeen ivrogne mooy ku yàgg naan sàngara ba nga xam ne bu naanul bu naaj bi tàngee mu màndi mu ne kooku la romb waa ji naan ko yaa Muhammad yaa Muhammad parce que daf ko toppandoo cheikh bi wax ñu loolu vendredi jot ma ni dama koy def ma def noonu ma bayaan ci jumaa ji ba pare ma génn benn waaye ne ma doomu Muhammad ñaanal ma gis ngeen kon loolu mooy Muhammad rasulullah Muhammad rasulullah mooy sa lépp nga toppandoo Muhammad lépp jële ko Muhammad loolu mooy Muhammad rasulullah Muhammad la yàlla yónni mais ku ñu yónni mu war a def message am yow mu ñëw wax war nga ne ko yow la ñu yónni waaw mais message bi bon duñ ko jàllale ah est-ce que yow gëm nga ki ñu yónni kon loolu mooy problème waa Sénégal gëmuñu Muhammad yonent bi moo indi koor yàlla mooy nañu war yonent bi indi ko jàngale ko ñuy togg café ci mbedd yi kan lañu kan moo leen wax nañ togg café ñii takk lam yonent bi dafa leen ko tere ñii takk tubéy ci seen yonent bi dafa leen ko tere mu xool il faut ñu xool baat yi ñu koy peser di ko teg suñ buggee nekk ay julit du da ngeen ñëw fii di da ngeen di formé wu formation islam wala aha bi ci njëkk mooy ngeen xam yonent bi ngeen li mu def ngeen def ko gis ngeen dafa ne man amila amalan laysa alayhi amruna képp ku def benn def defoo ko ni ko yonent yàlla Muhammad defoon yàlla dala koy delloo parce que yàlla amu ci soxla beneen misaal bu gën a gàtt kenn ci ñun bu amoon yére tisi mu yóbbu ko ci benn tailleur ne ko dama bëgg nga ñawal ma ko benn pantalon ak chemise ak grand mbubb tailleur bi jàpp yére bi yépp ñaw ko benn caaya tout caaya 12 mètres yépp caaya la ko ñëw nga ñëw mu ne la gis nga caaya ji kontaanal kooku est-ce que di nga ko fay lu tax doo ko fay ah parce que li nga ko wax mais est-ce que ñaw na ko wala ñaw ko ñaw na ko mais doo ko fay misaal boobu dafa sori amal kër terrain nga indi sa ciment sa suuf géej say fer sa béton nga ni waa ji damaa bëgg nga defal ma ñeenti néeg ak saal nangam nangam mu dem def ko benn saal bu yaatu yëpp mu ne gis nga da ngay wërëngu ba doyal ndax di maçon boobu la foo ko jëmee tabax na ko wala tabaxu ko ah tabax na ko est-ce que di nga ko fay lu tax waaye yàlla bu yónnee yonent yonent ne nii la ñun ñu ñëw ne du noonu nii la yàlla dinañ fay ñu def attention te mbir mu sew la lu sew la lu nekk suuf loo xam ne chaque jour waa Sénégal dañuy def da ngay dégg ñu ne yàlla neen nga ne ne sëriñ bi nag wala du ngeen gis loolu yàlla neen ñu ne waa mais sëriñ bi nag moom lii la def ah non sunu paa yi sunu maam yi lii lañ ci fekk ah sunu maam yi doyu ñu yàlla sunu sëriñ si doyu ñu yàlla bi yàlla di yónni Muhammad gis na leen fi doyu ñu ko dégg ngeen ma jaaraat ci kooku ngeen di xalaat seen xel waaw kooku kooku ngeen ko wax doyul yàlla ku nekk fi nga toog ki ngay xalaat doyul yàlla kan moo doy yàlla Muhammad moo tax fan la tàmbaleeg yow bi nga juddoo élimaan ñëw allahu akbar ci say nopp allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna Abdoulaye Ndiaye mooy papaam est-ce que loolu la wax lu mu wax lan la wax wa ashhadu anna fi nga nekkee liir lañ commencé di wax turu Muhammad sa nopp liir yaa ngi tëdd léegi nga jógee maternité wala sax sa papa bu dee am na xam-xam tuuti mu fekk la maternité ci biir maternité bi la yuuxoo Muhammad ci sa nopp julli jot bilaal bi di nodd ci jàkk ji di la woo turu kan Muhammad ñëpp ñëw ñuy li xaam ci turukan julli gi du mën a wéer lu dul ci sa taaya أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن nga dee war a dugg biir bàmmeel innal mayit iza wudia fi qabri wa tawalla anhu asaabu ataahu malakaani ku dee buñ la dugalee ci bàmmeel ba nit ñi ñibbi ñaari malaaka ñëw yëkka ci la nga toog ñu ne la maza kuntu taqulu ala hadha al abdu muhammada doon nga dégg muhammad nga ni waaw waaw waaw doon naa ko dégg kay kañ nga ko tàmbalee dégg nga ni bi ma juddoo sama àddina bi yëpp dégg naa muhammad ñu ne la léegi loo doon wax ci moom ah kooku jar naa xamaa gis ngeen fu mu tàmbale gis nga ñu la koy laaj ci biir bàmmeel kooku jar naa xam balaa ngay dee suñ la ko laajee xamoo ko musiba dalay la boo toogee ba examen ñu indi fooy yëpp teg dangam nangam dóor ëpp texte yi ci kii nga naan non mais man gars yi est-ce que li jàngoon nañ ko gars yi naan la ah non lu ñuy xalaat ci yow alku nga alku nga yow dootoo tekki pare nga gis nga parce que dañ laa laaj tontu woo ñu laaj la muhammad yonent mi nee na amal mumin fa yaqulu kuntu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu wa annahu jaana bilhaq min indillah maa ngi doon seede man kii yonent yàlla la yàllaa ko yónni jaamu yàlla la woon li mu indi woon dëgg la mu ngi ko jëlee ci yàlla gis nga su jaam su waa ji waxee loolu ci biir bàmmeel benn baat la ñuy dégg kaw asamaan muy yuuxu naan sadaqa abdi sama jaam bi wax na dëgg yaatal leen bàmmeel bi lalal leen ko lalu aljanna ngeen bàyyi ko mu nelaw nelawu séet séet bu sëy sëy ci kër di nelaw suñ ko yee ndànk lañ koy yee dañ koy raay dañ koy raay bu nee nii xool ñu ne ko jógal sangu boo sangoo ba pare ñu ne ko ndékki nga ndànk la ñuy wax ak moom mais seet boobu bu fa defee 6 ans buy nelaw nuñ koy yee seet boobu bu fa defee 6 ans ci kër gi 10 ans 15 ans boo ko yee noo ko yee da ngay armé di ñëw gis ngeen muhammad dañ la koy laaj biir bàmmeel su fekkee naafiq la woon amal munaafiq awil kaafir bu dee naafiq la woon wala yéefar buñ ko ne loo doon wax ci muhammad mu ne ah laa adri xaw ma ko de malaaka yi ne ko laa talayta wala darayta xamoo yàlla boo xamati allahu akbar xamoo yàlla boo xamati yonent bi nee na fa yudrab bi matraqatin min hadid fa yasiihu sayhatan yasma'uhu man yalihi illa al insu wal jinn danañ ko dóor benn bolde diggante ñaari bët yi mu yuuxu yuuxu boo xam ne ñépp koy dégg ba mu des nit ak jinne gis nga ñun ñoo toog fii de yéen a ngi fi ah armeel yi mi ngi nii jege leen ay mètres yu ndaw la mais déggu leen yuuxu yi pourtant am na ñu fay yuuxu instant bi ñuy wax ne am na ñu fay yuuxu xam ngeen lu tax ñun dégguñu ko dafa am appareil yoo xamante ni amuñu ko rek bu ñu ko amoon utiliser ko rek léegi ñu dégg yuuxu yi gars yi di yuuxu ci bàmmeel yi misaal bu gën a gaaw bu ñu fi indoon benn appareil télévision ñu teg ko fee ñun ñëpp ñu toog nii appareil bi kañ la ñuy gis image yi ci nekk bu ñu ko taalee orienté satellite bi orienté antenne bi ba mu jàkkaarloog satellite bi ñuy jot direct image yi nekk ci jaww ji fii ñu toog ci biir salle bi am na image wala amul suñ génnee léegi jaww ji am na image wala amul pourtant am nañ ay bën ñu ngi xool mais pourquoi gis ñu image yi parce que utiliser wuñu appareil yi mais buñ utiliser léegi télévision bi gis image yooyu wala comme ñu nag amuñu image al amuñu appareil àlaxira yi yonent bi amoon yonent bi yàlla da ko takkaloon mu romb ñaari bàmmeel ne ñaari borom bàmmeel yi yàllaa ngi leen di mbugal marra bi qabrayni lu mu wax mu ne ñaar ñii yu azzabaani te wa maa yu azzabaani min kabir bal kabir ñaar ñii dañu ngi leen di mbugal mbugaluñ leen sax ci lu ngand de ah kay lu ngand la ñu ne luñ def mu ne kenn ki da doon sawte du wisu gars yi gars yi dañuy joxe jaar ci miir yi rek génn seen Ablaye Ndiaye car dugal sànni ci biir te duñu wisu te duñu wisu saw te doo wisu ah nekkee dañ lay mbugal biir bàmmeel xoola ñun nuñ ko xeebe wala wala gisu leen ko yéen du jeex ñu ne keneen ki mu ne rambaaj la woon da daan tas diggante yi kon mbokk yi yontu yàlla muhammad dafa jar a xam ndax dafa bokk ci sa pas-pas nga fas moom la yàlla yónni ci yow yàlla yónniwul keneen mooy yonent bu mujj amul beneen yonent donte ne Sénégal am na yonent da ngay gis yenn saa yi ku sol comme tiset yi ngeen sol bind my prophet is black man sama yonent dafa ñuul wala yàlla yónnee ci Sénégal yonent bu ñuul ñu ne yonent yàlla Muhammad bi mu faatoo Médine dañ ko dugal ci bàmmeelam mu def fa ñetti fan ñëw toog Sénégal gars yi ne eskey eskey eskey eskey képp ku gëm ne yonent yàlla Muhammad ñëw na Sénégal mu ngi fi yow yéeféer nga képp ku gëm ne Sénégal yàlla yónni na fi yonent yéeféer nga ñun benn yonent lañ am mooy Muhammad amuñu ñaar amuñu ñett amuñu ñeent beneen bi mooy képp ku gëm ne sa kilifa diine gi nekk fi moo raw Muhammad yow bu yeboo nga xam ne pareel bokk ci waa jahannama bu fekkoon ne kilifa gi kay moo raw Muhammad bi nga duggee bàmmeel ñu laaj la ko bi nga bi nga bi ñu lay ngénte ñu wax turu waa ji bi julli jotee ñu wax turu waa ji waaye turu muhammad moo tax mu ne ëllëg yowmal xiyaam maay njëkk a dékki man la ñuy jox caabi ji maay waaxu ba fekk aljanna gardien bi taxaw ci bunt bi tudd ridwaan ma fëgg porte bi gardien bi dama kokkan la ma ne ko muhammad mu ne ma yow lañ ma wax balaa may ubbil kenn naa la ubbil ba pare muhammad balaa yàlla ubbil kenn balaa ñuy ubbil kenn bunt yi moom la ñuy njëkk a ubbil ndeysaan moom bu ñu ko ubbilee du dugg de day teg benn tànk daal di reculer xool malaaka bi mu ne ko lan la doo dugg mu ne ko ummati waxul ali de waxul fatima waxul khadija waxul zeynab waxul husayn waxul hasan lu mu wax ummati ana sama xeet fii ne day léegi ñu ne gars yi ñu ne sëriñ bi moo yor caabi àjjana ñun ñooy njëkk a dugg ñun te ñooñu wóor na yàlla bu nu duggoon dañuy tëj buntu bi ne yéen gis nga ñoom allahu akbar muhammad moom ndeysaan moom mooy mooy mooy ki yàlla yónni mu ëmbal ñu yërmande moo tax yàlla mu ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yow da nga ñëw pour sauver pour sauver adduna bi ñun ñu ñëw di farfarloo ñun même bu doon dëgg la sax kooku bu ñu ko joxee caabi àjjana àjjana yaatu na yaatu boo xam ne waroon naa bàyyi nit ñi dugg waaye da ngay dégg ñi ngeen dugg yéen bokku leen woon waxoon nañ leen ne ñoo ko yor ngeen ne yor mu ngi nii nag tey ngeen ci dugg yal nañ yàlla jubal ci tënk mayam boobu ci boobu ñu ñëw ci julli iqaamis salaa moo ci tegu deuxième ponk foofu yàlla lan la wax iqaam mooy taxawal da ngeen koy taxawal mais fii looy dégg gars yi nañ ko dóor mu daanu ci koor gi sax lañ ne yow ban mosquée ngay julli non man mosquée bee quoi parce que ñooñu 40 lan lan rakka xanaa ñooñu dañoo dof booy man mas mosquée bee laay dem ñaari rakka jàkka rapide ku bañ station monte fa ngay dem. léeg-léeg nga dégg ñu ne dañu ko dóor mu daanu booy dóor ko mu daanu waay na gaaw taf taf rapide na gaaw ah. waaw waaw booy taf taf ñuy caayan ko amuñu jot gis nga julli yonent bi saa salaam bu sonnoon danaan yaa bilaal arix naa bisa bu sonnee de yàlla moo tagg saxaaba yi ne kaanu qalilan min alleyli daaw ñu nelaw guddi allazina yabituuna li rabbihim abdullahi ibnu abbas mus na seeti yonent bi xaw ma abdullahi ibnu mas'ud bu ma juumee ñi nekk fii gàgganti ma julli nañ gee ba pare mu ñëw di seet si yonent bi mu ndee mu ñëw rek yonent bi ne allahu akbar xam ne ne naafila parce que julli nañ gee ba pare mu ne xaaral ma kàbbar topp ko mu kàbbar yonent bi jël fatiha fatiha jeex mu jël baqara mu naan xam naa boo amee ay quelques aaya day rukkoo baqara jeex mu jël ala imran daal di door ñaar rakk te ni mu taxawee guddaayu Baqara ak Aali Imran rukkoo bi noonu la toll sujjóot bi noonu la toll mu siggi deuxième rakk jël Maïda ak Nisa bi muy sëlmal ñaari rakka yi mu dégg Bilaal di noonu as-salaatu xayrun min an-nawmi fajar ci jàkka ji ñooñu ñoo doon taxawal julli loolu mooy julli taxawal julli julli dañ koy taxawal kenn du ko dóor mu daanu waaw Huzayfa gis nga julli dañ koy taxawal yàlla aqim la wax aqimi salaa taxawal leen julli xaafizu ala salawaat respecté leen julli yi wattu leen ko sàmm leen ko su yàlla waxee loolu lumba bi mooy bala nga koy def xoolal fooy jaar préparé ci set ci ñett set ci yaram set ci yére set ci place bi nga koy defee xoolal ñun jour vendredi da ngay gis mécanicien yeeg menuisier yeeg ferrailleur yeeg maçon yeeg jaaykatu jimbo yeeg jaaykatu jën beeg ñëpp ci sàppe bi ñuy xeeñ seeni tëni benn bis Ablaye Wade avant muy wàcc daf ñu invité woon palais ñuy dem ki ñu doon àndal mu ne na ñëpp sol correct parce que dafa doon yóbbu ay xale yu góor ak xale yu jigéen keroog li mu yóbbu ci ay kaar mën na 200 parce que da doon def ralliement benn politique jógee ci parti dem ci parti loolu la doon def mu ñëw ne ma ah da ngay dem de parce que yow sama xarit nga xam nga politico mais pour mbooloo mi bëri rek ma wax wax mu ne ma da ngay dem ma ne nañ dem ñu dugg ci oto yi ñu wàcc ñu rang deux rangs rang wu góor rang wu jigéen gis nga ñi dëgëroon bopp cristal seen tubé yi tent seen bopp yi wala sol tubé bu verte mbubb mu bleu mbax na bu xonq da ngay rang ba yegg si gendarme ne sama fee jigéen de ñëw ween yeeg yére yeeg ñu ne ko eh duñ fa xool duñ wax de da ngay yegg si ñu ne eh ah eh ñu ne eh mën nga fi jóge wala mënoo fi jóge nga raam ndànk dugg ci oto bi toog gis nga keroog lu tolloog deux cent car dugguñ te liñ yóbboon kenn xamul nu mu toll mais ay oto yu bari kenn duggul lu tax parce que xale yu jigéen yi li ñu sol baaxul ak xale yu góor yi ma taxaw ci giri bi xool leen ma caaga man leen fi yowmal qiyaam moo ngi nii yàlla misaal leen ko yàlla tabax aljannaam ne ku melul nii doo fi dugg Abdoulaye Wade indi paleem bi ne ku te tabaxu ko sax ñun ñëpp cotisé nañ ci suñu xaalis la mais mu ne ñu ne ku melul nii du fi dugg ñëpp d'accord ngeen ñëw tey dugg leen yowmal qiyaam ngeen bëgg mel nu leen neex dugg aljanna leen di nax seen bopp kon mbokk yi julli mooy jaamu yàlla bi gën a màgg ci jaamu yàlla yi li koy wane ñaar julli fan la ko yàlla joxe yonent bi kaw asamaan yeneen ibaada yëpp ci suuf jibril la yàlla yónni jibril ñëw ne ko yàlla nee na ngeen ngeen woor yàlla nee na ngeen añ màkk yàlla nee na ngeen joxe azak amma julli dañoo rañaana yonent bi subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid al aqsa dañoo yóbbu yonent bi ba kaw asamaan yàlla jox ko julli boroom xam-xam yi bi ñuy misaal julli ni mu mel ci nit fii ñu nekk tey mën ngaa gis kuy dox te amul tànk wala wala ko amul tànk day dee nit mën na dund sans tànk nit mën na dund sans nopp nit mën na dund sans bët nit mën na dund sans làmmiñ ay ne du wax nit mën na dund sans loxo ndax nit mën na dund sans bopp mas ngeen gis bi Sénégal nekkee ba Sénégal kuy doxantu bopp kese baatu kese mas ngeen ko gis loolu mooy julli léegi nag imagine la bu ñu nekkee ci jamono boo xam ne ay nit dañ naan ñun duñu julli pourquoi ñu ne ñun dañ ñu koo teggil waxuma sax ñu yem ci loolu mais dañ koy woy dañ koy woy am confiance confiance du ñu julli du ñu woor sunu deewee dugg àjjana di ko woy dañ koy woy di ko tëgg di sabaru 10 heures ba 4 heures du matin ba pare ñu ne ñun ay jullit lañ yàlla yónni yonent bi ne ko nañu julli yonent bi ñëw ne lii tàqale jullit ak ku dul julli mooy lan assolaa inna al ahda allazi baynana wa baynahum man taraka assolaa kafar fa xalafa min baadihim xalfun adau ssolaa wattabau shahawat fa sawfa yalqawna gayyan waa safara bi ñu duggee safara waa àjjana dañoo ubbi seen appartement yi ubbi ubbi fenêtre yi ah toog ci seen fauteuil yi seen karaaf yi wër leen seen soxna yi nekk seen wet ñuy xool waa safara ne leen yéen waa safara maa salakakum fii saqar lan la waa safara tont qaalu lam naku min al musallin ñun dañoo bañoon julli gis ngeen kuy julli di yàq julli gi sax safara la jëm waxuma laak nag ku dul julli fa waylun allazina hum kooku day julli de mais da koy yàq safara la jëm kon ki ko dul def nag waaye julli dafa am lu mu laaj ndax da ngay ñëw rek këpp këppal julli mooy cordon bi taqale nit ak boroomam portable bi kañ lay am njëriñ ah soo amee réseau poto courant bi kañ lay am njëriñ su amee courant lampe bi kañ lay am njëriñ su amee courant lampe bi nekk fi te amul courant mu benn njëriñ amu fi benn njëriñ dafi xatal sax loolu mooy jullit buy julli ak jullit bu dul julli julli farata la ci sunu kaw yàlla subhanahu wa taala moo ko farataal ci sunu kaw yàlla subhanahu wa taala moo ko farataal farata la du ay sunna du ay làmbatu ba pare mu bokk ci pays yi gën a rëy nga xam ne yonent bi nee na ku ko bàyyi màbb nga diine man aqaamaha faqad aqama diin wa man tarakaha faqad hadama diin yonent bi ne ku bàyyi julli màbb nga diine nga war ko def inna salata kanat alal muminina kitaaban mawqut farata la bu ñu farataal ci yow ba pare utal ko ay heure ne la da nga ko war a def lan mooy wane ne gëm nga yàlla nga tëdd cinq heures et demi ñu nodd asalaatu xayru min an nawm luy wane ne gëm nga yàlla nga ni bërët parce que dégg nga assalaa yenn saa yi damay seetaan film la messager dañuy wane saxaaba yi ñu nekk seen tool yi di di bay di gob di gàbb am na ci koo xam ne dafa yëkkati bëgg a dóor mu dégg ñu ne allahu mu daal di teg ndànk dóorul ba pare ñeneen ñëpp taxaw ñu siggi xoolante ñu xool seen heure nu ñu ko daan xoole ñu ne pourtant heure bi du heure julli kon am na lu xew ñu bàyyi liggéey bi daw wuy ji yonent bi ñu ñëw fekk aaya moo wàcc yàlla di leen wax dañu war a jihaad yi li ma bëgg a wane foofu rek mooy waa ji bi mu xàccee mu dégg ël dóorul ñun bu doon ñun day gis ko yendoo liggéey ba ngoon ñu wax mu naan non xoolal liggéey jaamu yàlla la quoi xoolal bu ñu kenn sonal xoolal gis nga fii boo fi liggéeyul booy bañ dàq la da nga yàlla ko di di ut ay prétexte yooyu làqatoo làqatu nga gis ku xëy sooba ngoon julliwul yenn saa nga gis benn mal un boo xam ne benn sindax boo xam ne weeru koor ba weeru koor lay julli ak nga gëj a julli non booy wax dëgg yàlla nag weeru koor daaw quoi mais temps yi commencé waan naa quoi loolu ban diine la ban diine moo jàngale loolu bu la neexee bu la naqaree bu la neexee nga def su la sonnee nga bàyyi wala tey ànd nga ak nit ñi nit ñaa ngi ko def nga def ma ne olof yi nee nañ ku noppi nax sa bopp sa aajo faju xam nga nu mel ku tëdd ci kaw lalam guddi jot mu tëdd ci kaw lal bi ba pare jaaxaan di saw jàpp ne mu ngi ca duus ba fekk mi ci kaw lalam jaaxaan di saw jàpp ne moom nekkul ci kaw lal bi ca duus ma la nekk di di gën a roose ba mu yeewu bu yeewoo yéenay gis paa buy bàcc léegi nag kan la ko def moo tax bañu nekk fii di dof doflu topp dëkk bi topp xumb-xumb yi ngeen gis di dof doflu topp ñu réer ñu alku ñi nga xam ne xamuñu diine xamuñu dara lislaam leerul seen bopp ak topp ñi nga xam ne dañuy yombal diine ji yolomal ko ñu lay jay ba nga bàyyi li yàlla santaane bis boo duggee biir bàmmeel jàngeen alquran ci suratul naba'i aaya bu ci mujj doomu aadama tibb suuf di ko ëf ci ngelaw li muy naaw mu naan yaa laytani kuntu turaba aka neexoon tey ma nekk suuf xoola nit dem ba bëgg a nekk suuf bëggoo nekk nit aka neexoon tey ma nekk suuf yowmal xiyaam yàlla day dekkil rabu àll yi bu nekk bu mbëkkoon moromam fayu ñoom ñëpp bu ñu fayoo ba pare yàlla ne leen kuunu turaaban nekk leen suuf yàlla ne doomu aadama nag ñëw naa ci yow nga dégg doomu aadama comme jaamul woon yàlla mu naan yaa layta nii kuntu turaaba kon jullee ngoog nañ ko taxawal boole koog ay sartam ci wàllu laab ci set ci njàpp ci sangu nuñ koy defee fuñ koy defee wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid mais ku góor day dem jàkka lu tax xale yu góor yi duñ dem jàkk yéen lu tax du ngeen dem jàkk yéen xale yu góor yi lu tax du ngeen dem jàkk lu tax bu stade bi wootee fees del bu stade bi wootee fees del bu mbëri di bëri ji wala Sénégal di football wala soo am ci stade bi ban heure ngeen di dem ñiy seetaan yi ban heure la ñuy dem trois heures yow yaa baax neuf heures suba nga gis oto yi dang gars yi di préparer sol ay tiset tent seen bopp yi ñii ku nekk di jibile di yuuxu parce que sa mbër day bëri nga dem stade yendu fa doo lekk doo naan di yuuxu ba ngoon jat moo xam daan na moo xam daanuñ nga ñibbisi nga dëkk ci wetu jàkka ji zéro mètre chaque jour bilaal bi di la woo naan la hayya ala salaa naan paa yi vraiment paa yi dañu ma dañu sonale quoi dañu lakkale jàkka ji haut-parleur bi sax dañu ko war a wëlbati te nga xam ne dem jàkka farata la yonent bi saa salaam nee na bëggoon naa lenn julli jot ma ñëw ci jàkka ji ñu noddu liqaam ma wax ma seet benn waay ci mbooloo mi ma ni ko jiiteel mu ne ma tànn ci mbooloo mi ay nit ñu dem àll ba ut ay mat ma ñëw ci kër gaa yi nga xam ne duñ dem jàkka ma lakk seen kër yi wala loolu du hadis ñu ne ko lu tax defoo ko mu ne ak jigéen ñi moo tax ak ñi feebar ñi ak màgget yi mais sinon ma lakk kër yi bu yonent bi ñëwaatoon tey Sénégal dina lakk kër yu bëri et jullit bu dul dem jàkk la salaata li jaaril masjid illa fil masjid man huwa jaarul masjid allazi baynahu wa bayna al masjid arbauna daar ñu ne arbauna daar jaar 40 maison seen kër ak jàkka ji yow da nga war a julli ci 40 loolu moom amul Sénégal Sénégal moom bëgg nañ jàkk ruq boo tourné jàkka la xam nga luy problème kenn du fa dem nag loolu mooy wax ci kon nañu xam ne dañu war a julli waaye dañ ko war a préparer dañ ko war a taxawal ci li mu laaj ci xusu toroxlu fi mu nekk nii dañuy julli rek mais kenn ci ñun tey boo fi taxawoon ñu ne la julli lu muy saf doo tontu kenn ci ñun laa wax bu fi toogoon léegi ñu ne ko julli lu muy saf olof yi dañ naan la mu saf léegi léegi bu ndogu jotee ñu jox la tàndarma nga xàmp sàqam yi looy njëkk a saf est-ce que da nga ko màcc su kenn julli woon julli ba pare ñu ne ko bismillah léegi julli gi lu muy saf du am lu muy tontu te pourtant julli dafa am lu muy saf qad aflaha almuminuun alladina hum kon am na lu muy saf yàlla mu ne ñi gëm yàlla texe nañ qad aflaha du lool ñan almuminuun limaza alladina hum fi salatihim parce que bu ñuy julli dañuy toroxlu yonent bi di leeral nan la ñuy toroxloo sahaaba yi ne yonent bi bu daan julli dañuy dégg dënn bi azizun ka azizil mirjal min al buka dañuy dégg bu ne allahu akbar ay quelques minutes ñu dégg dënn bi di xiixat muy jooy ndax lan kan la taxaw ci kanamam damay faral di wax xale yi président de la république bu jógee ci avion di wàcc dañ koy préparer di ko teeroon dañuy mobiliser armée bi yëpp soldats yi ñëpp taxaw wala suy tukki dañuy mobiliser soldats yi ñëpp taxaw mais li ma bëgg a laaj mooy soldats yooyu taxaw naka la ñuy taxawee ci kanamu président naka dama leen di laaj de naka la ñuy taxawee ah ah wala yéen du ngeen ko seetaan dañuy taxaw respect taxaw bu jub daal yi dañuy tolloo tànk yi tolloo bal sax dañuy def rang ñi gàtt ñi nekk ci kanam ñi xaw a njool nekk ci digg bi ñu njool njool ñi nekk ci ginnaaw wala mbax na yi sax day tolloo mbax na yi kenn du indi mbax nem ne nii kii ne nii kii ne nii mbax na yëpp normal teg ñëpp waaw ñëpp tolloo loxo yi tolloo tànk yi tolloo lépp tolloo ñoom ñëpp ñu raa raa bi jub est-ce que ñun noonu la ñuy taxawee ci kanam yàlla ci jàkka ji ñii kan lañ taxaw ci kanamam mbindeef nit ñee kan lañ taxaw ci kanamam borom mbindeef yi te te jubuñ wala ba pare ci julli gi kenn du teewlu mës naa dem ci benn waxtaan bu mel nii timis jot ñu julli ba pare ñu ne ma balaa ngay dem defal bayaan ma ne asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam ma ne élimaan bi muy jiite ya- lan la doon jàng yan saar gaa yi naan ñi doon julli comme saal bii la mais dafa mel ni dañ leen dóor yàpp loolu mooy nit ñi dañuy julli mais sans teewlu ngay gis nit ci jàkk mu julli ba pare ngeen ko ilimaan ban saar la doon jàng ma yee wax nga dëgg de mais wax nga dëgg de ah mais wax nga dëgg de yow loolu julli la loolu du julli dañ ma yónnee sama boîte email benn image vidéo ay nit yuy julli ci benn jàkk juróom lañ ilimaan bi bi mu ne allahu akbar ba commencé jàng ilimaan moo njëkk a génn jàkk ji maanaam ruu bi moo génn mu taxaw ci buntu jàkka ji naan allo ah ki topp ci moom daal di génn dem marché ba di jëndi keneen ki dem dem këram di régler ci problème maanaam nit ñi dañuy nekk ci jàkka ji mais yaram yi ñoo fa nekk ruu yi nekk fa dañuy bàyyi ba dernière minute ñu ngi taaya ñu war a sëlmal ruu yëpp daw ñëwaat na da laay ñun ñëpp noonu la ñuy jullee day gis ku nekk ku kabar ci taxaw de ci kanamu yàlla kabar allahu akbar fekk nekkoo fi fekk nekkoo fi julli googu da ngay julli ba pare dara da ngay julli ba pare malaaka yi jël ko taxañ ko ba mel ne bal tengs ñu dóor la ko ne la ne la dayyaaka allah kama dayyaata haadihi salaa ni nga sànke julli gi yal na la yàlla sànkee noonu mën nañu yem foofu ci julli ñu jël joxe azak du iqaami salaa moo ci tegu itaay zaka azak farata la ci ñi am ñoo koy génne ginnaaw ba ñu amee seen alal lu tolloog nisaab kan lañ koy jox ñi ko aajowoo ci xeet wi te seen loxo jotul seen ginnaaw léegi nag xoolal xikma yi ci yàlla def ki koy joxe ki ñu koy jox nga dëkk ak benn waay ci koñ bi wala nga dëkk ak sa papa rek lépp mu la koy defal est-ce que dina yell mu yoon mu woola doo wuyu mu yónni la doo dem bu dee sa benn dëkkandoo nag boo xam ne chaque jour li mu am mu ngi la mu ngi la ciy jox est-ce que di nga ko romb doo ko nuyu est-ce que otom dina pante doo ko puus est-ce que këram dina tàkk te ñëwoo est-ce que di nga ko jëlal en comme démb li gis ngeen tele démb paa bi ñu rey ci balcon yeew ko seetaan leen ko waaw parce que yéen yéen a ngi fi moo tax Grand Yoff benn borom kër lañ fekk ci biir këram rey ko yeew ko ci balcon bi paa journaliste bi ñu ñëwee lan la dëkkandoo yi wax ñu ne koñ bi dafa bëri ay bandi gis nga azaka yu mel noonu lay dindi nit ki bu nekkee ci koñ am di ci génne di ci jox waa koñ bi waa koñ bi li ñuy saay saay saay saay li ñuy wëyu wëyu dañ koy moytandiku parce que dañuy xam ne kii mais booy jaay waa koñ bi ngand nganduloo di ñëw di accélérer rrr di tël ay bunt di gaa yi seen xol yi ñooy yéeg moo tax yàlla subhaanahu wa taala dafa jël loolu pour même ba ci koor gi nii xoola ngay joxe joxe yàlla moo def kuy joxe nit ñi dañ lay bëgg booy joxe nit ñi dañ lay bëgg kenn du la bañ jamais c'est parce que da nga ëmbal nit ñi seen sànqal olof yi nee nañ ku ëmb sa sànqal bu sa kersa maanaam yow yi ñuy jox sax yenn saa yi doo waa ji lay jox même bu defee lu bon dootoo ko critiquer da nga naan ah waaye xam nga rek pourtant xam nga ne moom moo nekkul ci dëgg waaye lu tax bëgg a wax nekkul ci dëgg suuma mooy sa intérêt bi nga denc moo tax yàlla jël azaka benn ki koy génne da koy setal xuz min amwalihim tutahiruhum biha watu tuzakkihim da leen di laabal di leen setal ba pare ñu koy jox ku ñàkk ku nekk ci xeet wi koo xam ne amul ñooñu tamit yàlla moo leen tànn ne ñoom lañ koy jox ñu nekk juróom-ñett ci suratu tawba ñi ñuy jox azak ñan ñoo koy génne ñi am ñoo xam ne denc nañ misaal su ma doon joxe misaal ku am 5000 francs misaal bu gàtt 5000 bi nga jël ko denc ko soxlawuloo ko weeru koor gi ba weeru koor gi ñëwaat ñu ne la saraxe ci 1000 francs 1000 francs bu nekk loo ci génne 25 francs ku am 1000 francs ñu ne la saraxeel 25 yaakaar naa ne loolu waru indi coow de ah 1000 francs yi da nga koo denc un an ñu ne la saraxe ci kon azaka yàlla def ko def pour xeet wi ñi ñàkk seen ñàkk wàññeeku dëkk bi tey adduna bi bu ñu doon joxe azaka ku pauvre du am ma jox leen benn misaal rek banque Europe ak Amérique li fa julli di denc ci riba loo xam ne ñoom soxla wuñ ko suñ ko indi woon Afrique Afrique ñëpp ku nekk di nga am 2 milliards Afrique laa wax loolu Ablaye Wade bëggoon def pour arabe yi jox ko ndigal jullit yi jox ko ndigal mu dem Amérique dem Europe alal ji fa nekk te nga xam ne jullit yee ko moom mais soxla wuñ ko parce que riba la mu nangu ko indi ko Sénégal wala loolu jël ah su dañuy jël suñu alal tey Sénégal tey lan lañ toll ci problème ay audit ñi ñuy audité lan lañ sàcc ay milliards yéen jàngeen milliards nan lay toll ku ci doon joxe dépasse lan la chaque jour cinquante mille nga dund ñaata at suñ ko doon tàllal billet par billet ñu tegale ko nii nii day dem fi ba billet dix mille day dem fi ba Sébikotane billet dix mille ñu koy tegale nii laa nii nii di ko tegale un milliard nit sàcc waxu mu sàcc benn de mu sàcc quinze dix vingt trente ah du loolu ngeen dégg fi léegi audit yi lan la ñuy wax gars yi lu ñu sàcc ay milliards xam nga ne ñii lan moo jekk ci ñoom sotti leen essence taal leen milliard ku ko sàcc ci dëkk dañ la war a taal parce que yow normal dañ la war a yóbbu fan seet la milliard booy sàcc kay xanaa million doy na mais milliard milliard moo tax dëkk bi ndóol kenn du tekki parce que lii tax nit ñi am moom lañ yóbbu azaka nag day tax kenn du sàcc ñëpp ay am jàng ngeen jamono Omar ibn Abdul Aziz dañoo joxe azaka bi takkal jabar nit ñi ñii bëgg a liggéey li ñëpp ba ñuy wër ci mbedd yi di wër kan la ñuy jox azaka ñëpp am beneen mooy azaka suñ koy génne duñ ko def comme ni ko waa Sénégal di génnee def ko ay billet 1000 francs 1000 francs 1000 francs waaye jël 1 million def ko ay 1000 francs 1000 francs taxaw ci mbedd mi gaa yi rang ku ñëw mu jox la 1000 loolu du azaka azaka soo amee 1 million war ko génne azaka da ngay woo ñaari nit jox leen ko ku nekk am 500000 départ la de pour yow mi bëgg jaay wala départ la de yow mi bëgg a def sa benn taabulu siraas di siraas daal départ la de yow mi bëgg a ubbi benn kanting bu ndaw départ la 500000 su ko defee waajooju bu góorgóorloo ci lu ndaw loolu mu def ay at bu yàggee moom tam muy joxe azaka dootul taxaw ci mbedd mi di yalwaan dootul taxaw ci mbedd mi di agressé dootul taxaw ci mbedd mi di def yi bon parce que léegi am na fu muy faje aajoom mais léegi bu fekkee ne defuñu noonu waa ji 500000 la war a génne azaka 500000 yi mu def ko ci ay enveloppe 1000 francs 1000 francs bu ma la joxee léegi 1000 francs loo ci def ndogu toogaat rek di xaaraat amul benn njëriñ mais ku la jox léegi 500000 te nga bëgg a liggéey te nga gis li nga war a def nooy def syndicat bi tey ku fa yóbbu 500000 syndicat bi seen wet ku fa yóbbu 500000 di nga am loo defal doo am doo am kon loolu mooy azak ci gàttal. beneen lu ci tegu sawmu Ramadan benn misaal ñaar laa ci joxe ñu tëb mooy fi mu nekk nii ci ñun fii ñu toog lekk ak naan dafa dagan ci ñun wala daganu. lekk ak naan dagan na kay lekk ak naan dagan na waaye ci période bii lañ ñu ko tere suñu ndogoo léegi dagan na wala daganul dañuy lekk di naan di sëy mais mu dagan ci ñun sa soxna dagan ci yow yàlla tere la ko ci waxtu wi kon bu la yàlla teree lu baax loo moom nga bàyyi ko kon bu la teree lu bon loo moomul war nga ko bàyyi wala war a koo bàyyi ah yaa ngi nii lekk ak naan dafa dagan ci yow ci ñu tere la ko nga bàyyi loolu mooy falsafa loolu mooy philosophie corps mooy da ngay entraîner lu baax loo waroon def yaa ko moom yaa moom lal bi ñu ne la bul ci tëdd yaa moom mat la bi ñu ne la bu ci tëdd yaa moom dara bi ñu ne bu ci tëdd mbaaj mi ñu ne bu ko sàngoo néeg bi ñu ne la bu ci fanaan xam nga yaa ko moom ñu ne la bu ko def léegi nag jamono yow néegu jàmbur lalu jàmbur jabaru jàmbur yow mun ngaa bàyyi li dagan li nga moom ñu tere la loo xam ne moomoo ko munoo koo bàyyi déggu na li ma wax de est-ce que dégg ngeen bu baax fu may waxee maanaam koor entraînement la ci lu dagan luñ la tere loo xam ne yaa ko moom ñu tere la ko nga bàyyi ko kon ngalla bu weer bi jeexee buñ la teree loo moomul lu daganul war nga koo mën a bàyyi parce que def nga entraînement un mois pour nga am diplôme boobu ñuy wax at taqwa kutiba alaykum siyam kama kutiba ala lazina min qablikum xam nga li tax ñuy woor mooy mën a def li yàlla santaane bàyyi li mu tere loolu kese la entraînement la fi mu nekk nii ñu ngi def lu mu santaane ñu ngi woor ñu ngi jàng alquran ñu ngi zikr ñu ngi julli ñu ngi naafila ñu ngi góorgóorlu ci li yàlla santaane buñ ci nekkee weer boo buggee def formation benn société ñu yóbbu la un mois nga def formation war nga fa mën a nekk wala war nga fa mën a liggéey wala un mois formation doy na weeru koor garab la guy sax garab googu sax ba màgg nga toog ci keppaar gi weeru yàlla ngay toog ci suufu garab gi suñ la laajee waayo toogoon nga ci garab gi nga ni waaw ñu ne la ker gi nu mu mel war ngaa mën a tontu wala suñ la laajee fruit bi nu mu mel war ngaa mën a tontu wala loolu mooy weeru koor mooy da nga ñëw di def stage formation lenn rek pour def li la yàlla sant bàyyi lim la tere laallakum te mbooleem ibaadaat yi loolu moo tax yàlla sant ñu ko mbooleem ibaadaat yi yëpp pour ñu am taqwa la yaa ayuha nnas ibudu rabbakum allazi xalaqakum wallazina min qablikum laallakum moo tax ñu sant ñu koor moo tax ñu sant ñu jàng alquran moo tax ñu sant ñu añ màkk moo tax ñu sant ñu tabaski moo tax ñu sant ñu ku rey nit nañ ko rey yëpp ay aaya la ku rey nit nañ ko rey walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laallakum suñ ko gis nga loi boobu buñ ko sampoon Sénégal rek léegi ñëpp ragal yàlla ku rey ni dañ lay yóbbu ba fay stade ba rey la léegi ñëpp ragal nga gis ko xam ne waa booy xam nga nag gis nga man duma la laal xam nga yaa may tooñ xam nga loola gaa yi wax mais fi mu nekk nii lan la ñuy wax da ngay wax ak benn waay rek mu dem këram waxuma la sax loolu dafa sori mais da ngay gis kuñ tëj kaso ku rey nit muy génn na booy sama place bu ci kenn toog wax naa leen ko nag maa ngi dem damay ñëwaat rak tak dem dikk parce que xam nga ne dara du la ci fekk da ngay rey nit ba pare ñëwaat dugg fi toog dara du la ci fekk ñu lay jox ngay lekk ngay sangu te doo fay ngay taal courant doo fay ngay seetaan télé doo fay ñu lay garder boole ci nga nekk président wala wala du loolu mooy mbir mi su ko defee il faut ñu góorgóorlu xam li ñuy def boobu mooy sawmu ramadan mboolem ibaadaat yi bu dee bu dee bu dee aj màkk lan la yàlla wax fa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa bu dee jàng alquran xuzu ma ataynaakum bi quwa wazkuru ma fii laallakum bu dee tabaski lan yanaala allahu luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu gis nga yëpp taqwa yëpp fu muy teere mooy taqwa yëpp fu muy teere ji ci luñ ñu sant mooy bu ñu ko defee rek am ragal yàlla lan mooy ragal yàlla mooy imtisaalul awamir waccinaa bi nawaahi ñu dem ci hajj hajj mooy congrès bu mag bu jullit yëpp di daje tey nit jullit yi soxlaawee loolu ñu càmbar Sénégal lu fa xew waa Sénégal wax lu xew Mali ñu wax lan moo xew Gambie ñu wax lan moo xew Palestine ñu wax lan moo xew Égypte ñu wax umma bi ñépp xam ne innamal muminuuna al muslim ñu càmbar feebar yi ñu xam li ñu war a def xam nga lu doy waar mooy tey Sénégal ci àddina bi ni l'islam mel damay faral di laaj mbokk yi question man leen tey kenn ci ñun fii toog soo yoroon cent franc cent franc nga yor nga bugg ko jox ki jiite catholique yi Dakar am nga koo ko jox walla kan mooy tontu question bi question bi may laaj kan ma koy tontu yow soo yoroon cent franc nga bugg ko jox ku jiite catholique yi Dakar am nga koo ko jox walla am nga soo ko bëggoon jox ku leen jiite ci Afrique am nga koo ko jox walla soo ko bëggoon jox ki ko jiite ci àddina bi am nga walla amul boo yoroon un million nga bugg ko jox ku jiite jullit yi ci Sénégal koo koy jox kii tontu ah pourtant yow cent francs yi am nga koo ko jox ci Sénégal am nga koo ko jox ci Afrique am nga koo ko jox ci catholique yi am nga koo ko jox ci àddina bi am nga koo ko jox léegi nga yor un million bu ko jox jullit yi ne dama leen di dimbali kan nga koy jox ah ah ah non dama bu kenn waxtu soo ko joxee kooku ñee ñu ne ñun bokkuñu foofu de ñun bokkuñu foofu nga jox ko ko ñun suñu yoon nekk ci yow nga jox ko gële ñu ne ñun bokkuñu foofu mais boo demoon ci chrétien yi cent franc bi boo ko joxee pape bi ñëpp ñoo ci jot xoolal loolu mooy l'islam bu amul organisation maanaam l'islam bi ñëpp ay kilifa lañ amul benn kilifa léegi ñëpp kilifa lañ kër gi nag kër gi sax nag nangu nañ ko jiite kër gi bu ñu ñëwoon ci kër gi lu ñuy wax ana borom kër gi wala wala booy bi kilifa la soxna si kilifa la paa bi kilifa la ñoom ñëpp ay kilifa lañ lislaam nag ñëpp kilifa lañ moo tax ku nekk loo neex def hajj lan lañ ci jublu mooy alqasd jublu dem congrès bu mag xoolal nit ñi dañuy dem di jaamu ji yàlla ba pare boole ci seen alal kan moo leen woo yàlla walillahi ala nnaas xijjul bayt man istataa ilayhi sabil boo fa demee nga gis aj ni mu jajale jaamu yàlla yépp julli saraxe woor aj màkka mooy jaamu yàlla bu dajale lépp mbokk yi ci gàttal ci tënk bu gaaw a gaaw a gaaw lii moom laa leen indi loon di ko fàttali sama bopp di leen ko fàttali di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñi fàtte ci ñun yàlla fàttali leen yàlla nangul ñu suñu koor nangul leen yàlla def def ñu programme ñu ci ñi nga xam ne dañuy fekk néegéen i déwén asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu